parti de l'opposition euh, di diriger ab municipalité naka ngeen di débrouiller wu foofu. waaw jërëjëf euh, question boobu question bu am solo la euh, nous sommes de l'opposition face au pouvoir central. Mm-hmm. mais bu dee biir Thiès tey mën nga ni ñun ñi fa nekk tey ñooy majorité bi. Mm-hmm. donc moo xam maître Ousmane Diagne la bi nekk est. moo xam docteur Babacar Diop. moo xam Birame Souley ak man mi ñun mm-hmm. ñëpp ñoo bokkoon benn liste nekk ci list Yewwi Askan Wi kon tey ñu jëlee fa. ñi nga xam ni depuis 2000. Ah. mën nga xam nga xam nga ni ñoom ñoo nekkoon Thiès muy waa réew mi. waa donc tey la majorité à Thiès c'est Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. maintenant par rapport au pouvoir central ni ñuy dundee euh, suñu nekkin ak suñu doxalin bi ñu ñëwee léegi euh, mën nga ni su ma ko xaymaa damay gis ni jafe-jafe yi bari na ndax jafe-jafe yi nag lu may làmbatu. Mm-hmm. wala lu may xalaat nii di ko wax nii. damay joxe rek ay ay misaal xam nga ñun bi ñu ñëwee en deux mille vingt deux dañu ñëw suñu commune euh, fekk ñu foote benn budget. Mhm. budget boo xam ni équipe bi fa nekkoon avec le maire Aliou Sow ñoom ñoo ko woote woon muy quatre cent vingt millions. Mhm. bi ñu ñëwee daaw deux mille vingt ñu def góor góorgóorlu ba doubler budget bi. donc daaw suñu budget mi ngi tolloon ci huit cent soixante neuf millions moom la ñuy waaj jeexal ni ren ñu waat ko incha allah deux mille vingt euh, deux mille vingt quatre huit cent quatre vingt quatorze millions. Hmm, budget boobu si lan ngeen ko wekk déjà bëggoon naa ko xam un peu. li ñu ko wekk mooy bi ñu ñëwee mooy fexe ba ku xam Thiès Ouest xam ni mooy vitrine u Thiès. Hmm. maanaam soo dee dugg Thiès moo xam nga jaar péage bi moo xam nga jaar côté Pout. Hmm. Thiès Ouest ngay. moo lay accueillir moo lay accueillir mu nekk. Euh, commune boo xam ne institution yi nekk cees yëpp biir cees Ouest lañ nekk. foofu lañ concentré wu. foofu lañ ko moo xam gouvernance la moo xam préfecture la. avantage la par rapport bi mu mhm, nekk. Euh, gare routière bi fa la nekk on a quatre marchés. Mhm. marché Grand Thiès marché Darou Salam moo nekk wetu musée. marché Aslem Sofrako ak marché Mbourde. tey Carrefour fa la nekk c'est le seul bu fa nekk ci Thiès mhm. yëpp Auchan am nañ Auchan. donc mu nekk euh, commune boo xam ni dafa am potentiel bu énorme mhm. Mbourkat fa la ne on va revenir d'ailleurs sur Mbourkat mhm. donc euh, atractivité bi mu am moo tax bi ñu ñëwee bi ñu saytoo xool ñu ni première chose bi ñu njëkk a def mooy li ñu fi fekk ci ay euh, taxe municipale il faut ñu yokk ko mhm. parce que dafa durer ëpp na cinq ans donc taxe yi yokk bi lan la da ngeen ko réglementé mu tegu ci yoon dugg fi mu war a dugg wala c'est sur le dos population populations. non non non non c'est-à-dire euh, maanaam xam nga soo dee yokk taxe municipale da nga koy yokk par rapport à l'économie. Mhm. par rapport est-ce que dëkk bi àttan na ko est-ce que liy génn ci dëkk bi àttan na ko. Mhm. parce que aussi euh, trop d'impôt tue l'impôt comme on dit. Mhm. c'est-à-dire doo taxer nit ñi ba fàtte doxal activité économique bi. donc institution publique bu mu mën di doon moo xam état la. wala collectivité territoriale da nga war a accompagner le secteur privé donc li nga leen di accompagner mooy nga may leen euh, environnement boo xam ne dinañ ci mën a évoluer favorable mais aussi bu leen imposer imposer boo xam ne day tax ñu daw dem feneen wala di rey di leen suuxloo mm-hmm. mais bi ñu ko nattee yow dëkk nga Thiès ne nga ma sànq ñu ngi waxtaan nga ma Thiès nga dëkk mm-hmm. ku xam Thiès diggante 2015 wala 2017 ak Thièsu 2022 23 ba 24 li nga xam ne soppeeku am na mm-hmm. avec autoroute à péage bi dugg si. nga xam ni tey boo xoolee stade Lat Dior rond bi foofu ñun suñuy jamono bi ñuy nekk xale 19h daawoo fa. daawoo fa gis daawoo fa gis kenn mais tey boo fa demoon heure bi nii nii nii c' est grouillant de monde. mën nga ni tey foofu mooy centre ru le cœur de la ville c' est le cœur de la ville. Mm-hmm. donc lu mel noonu nag dañ ni jaadu na aussi collectivité bi gis ci boppam. Mm-hmm. moo tax ñu ni taxi yi ñu fi fekkoon nañ ko yokk. d'accord donc ñu def délibération conseil municipal bi yokk ko kooku benn la. beneen bi wax naa léegi mbuurkat mu nekk tey euh, zone boo xam ni ñëpp ku ne mi ngi xalaat am fa kër. Thiès waay ñi dëkkul Thiès ñëpp. ñuy daw Dakar ñëpp ñiy daw Dakar. Mm-hmm. parce que fi mu positionné wu. Mm-hmm. ñu ni kon léegi euh, li ñuy tuddee frais de bornage yi dañ koy yokk tamit foofu tamit ñu yokk frais de bornage yi. Euh, mu indil ñu xaalis boo xam ni xaalis bu am solo la. Mhm. Euh, beneen bi mooy biir gare routière dafa am benn station totale bu fa nekk boo xam ni commune bi euh, bi ñu defee dévolution bi en mille 2014. def ñetti communes yi Thiès Ouest lañ jox gare routière mu koy gérer mu nekk titre foncier mhm. donc station bi fa nekk contrat bi leen lié woon ak l'ancienne commune de Thiès contrat bi dafa jeex bu yàgg depuis 1980 la et il n'a jamais été. il n'a jamais mhm. ba nit ñëwee ñun kenn mësu ko renouvelé et à l'époque xam nga ñaata la lañ daan fay ñoom. Mhm. trois millions lañ daan fay de location par weer. bi ñu ñëwee aujourd'hui ci location bi ñu ko renégocier. ñu ngi fay 17 millions. par weer te loolu bokkul ak. loolu c'est des rentrées d'argent perdues. c'est mhm. te bokkul ak li ñu war a fay ci publicité. bokkul ak li ñu war a fay ci taxe sur les euh, pompes automatiques yi. donc location bi rek laa wax. fi ñu assiette bi ñu toog. bi ñu ko nattee. renégocier contrat bi war nañ ñu fay léegi chaque année. 17 en commençant 17 millions booleeg yeneen yi publicité bi ñu yokk ko. Mm. taxe sur les euh, pomp ci carburant bi dañ ko yokk donc yokk yooyu yooyu ñu yokk noonu. Mm-hmm. n'est-ce pas loolu moo feeñ ci budget bi. Mm-hmm. ba samedi lañ doon voté war suñu budget pour 2024. Mm-hmm. d'accord léegi li ma nga xam docteur oui oui ah, rapidement foofu je termine donc samedi bi ñu dajee. ma ni conseil municipal bi. li gën a neex sentiment de satisfaction bi ma njëkk am. mooy daaw bi ñuy wote budget bi fa am conseil yu ñëwoon le budget ne pas n'est pas sincère parce que fekk budget 420 millions. yóbbu ko 800 doublé ko 869 millions c'est pas évident. parce que boobu yéen xamoon ngeen ne am na ay niche. mais xamoon nañ ni boobu suñu liggéeyee dëgg-dëgg ba tey sax li ñu war a exploiter sax dafa des. ba tey uh-huh. parce que fi yoon fi mairie bi nekk. tali boobu dafa tëj presque 6 mois. Mm-hmm. ñi fa nekk yëpp comme activité commerciale dañ leen mujj fayee leen. Mm-hmm. parce que dañ ni comme defuñu activité ci patente yi dañ leen a bàyyi noonu. Mm-hmm. fi nga xam ne mooy place Sofraco nga xam ne fa lañ daan def ay foire mooy entrée Thiès rek fi ma la doon wax léegi rond point bi. am na place bu nekk sa côté gauche. foofu lañ daan defee foire ren presque organiser wuñ foire. parce que ñi doon def ak tali bi fa lañ tegoon seen machines yi. ak kii dañ